benn information bu jógee médical privé ne am na patient bu fa de nationalité française mais qui possédait une température température wu 39 degré gorge bi di metti mooy mais aussi beaucoup aussi di metti loolu joxe njort man na nekk feebar bi xamante ne mooy coronavirus parce que loolu mooy signe yi xamante ne moom lañ joxe ci tableau clinique bi ñu gisee loolu suñu équipe yi dañoo dem immédiatement def prélèvement bi ñu defee prélèvement ñu yóbbu ko effectivement fu ñuy wax service des maladies infectieuses pour mën ko fa téye le temps que résultat yi génn Passé en boobu nationalité française là, mais mi ngi nekk Sénégal depuis ñaari at ak ñaari doomam ak soxna dafa de dëkk France précisément fu ñuy wax Nîmes ci une station de ski pour nekk dans la région bu ñuy wax Auvergne-Rhône-Alpes nekk na fa ci période 13 ba le 25 février dellu le Sénégal

man ngeen ko wóolu ci stratégie bi xamante ne teg na ko en place pour circonscrire maladie déjà li ñuy wax cas contact mooy par exemple ñaari doomam soxnam ba aar ñi xamante ne ñëpp yaakaar nañ ne war nañ leen mën a vérifier déclenché nañ ko ma leen di wax ne tam organisation mondiale de la santé yëgal nañ ko information bi parce que loolu mooy procédure règlement sanitaire international ma leen di wax di yëgal ne situation yu mel nii li gën a nekk farata ci xeex bi mooy joxe information bu baax pour que donc dara ba na mën a am su rumeur boo xam ne day yàq xel bi te loolu nag yaakaar naa ne suñu premier partenaire bi war a def liggéey boobu suñu côté mooy ñu xamante ne ñoom ñooy tas xabaar yi mooy journaliste moo tax ma leen di demander organes yi xamante ne bëgg nañ accrédité ay journalistes ñu ànd ak suñu service de communication ma leen di yëgal ne mën ngeen rapproché wu de benn salle de presse dañ ko mettre en place comme ça bés bu jot rek ngeen mën a am information bu baax à la source loolu lañ ne woon danañ leen ko yëgal ñu ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah.